ki si njëkk Lamine Ndour la mu nga dëkk Kolda moom day laaj mu ne sëñ Habib jigéen ju gis régal ndax dana romb jàkk xam naa laaj bi def ko moy la mu waroon a wax kay mooy sëñ Habib ndax ku yor régal dana dugg jàkka loolu moo war a nekk laaj bi waaye romb jàkka kay ah ki gis régal ak ku gisul régal ñoo si bokk yam ndax day doxi soxla <laughs> waaye daal li laaj bi mooy ndax dina jug dugg jàkk ku gis reegal déedéet lamin li ñu lay tontu mooy boo demee sa téere fiq daf lay jàngal ne laa yaxilu daganut duqulul masjid dugg jàkk alxaidi ku gis reegal wala junubin ku gis jana ku am janaaba du dugg jàkka wala nifasin ku am wasindi du ko jàkk kon yow mi amee reegal daganut féeg reegal bi satul ngay dugg jàkk daganut ndax lu ñu wax wa anal masajida lillaahi falaa tad'u ma'allaahi ahada loolu la wax di jàkka ji jàkkay yàlla la bu leen fa woo ku mooy yàlla te yàlla lan la yàlla kay mooy ku sell mi mooy mu sell mi kon néegu yàlla la dafa sell kon lu sell lañ fay dugal te yor a reegal setut sellul ki yore jànna ba setut sellul ki yore wasin setut sellul kon tere nañ leen ñu dugg jàkk kon daganut yàlla min kon daa